asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki M Media Group Nourou Darayni ñoo leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weeru sell wi ñu génn di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungu ñu suñu jaamu yàlla te ñu teewe ay déwéna déwén bi jëy seena Muhammad sallallahu alayhi wa ci fekke ak tal ak xéwal ak kattan buñ koy mën di taxaw bi jëy seena Muhammad sallallahu alayhi wa di ndokkeel mbokki jullit yëpp rek rawatina bokk yi ñu bokkal liggéey bu sell bii ñu liggéeyal maam xaadimu rasul ci jëm ko liggéeyal ci alxuraan ji ak jëm ko liggéeyal ci xasida yi di jiital ci néew boobu rek a عبد الأحد مكي ابن الشيخ أبي بكر مكي Coro Mbàkke di ñaanal bu baax a baax yàlla yàggal ko suñu kanam may ko kattan ak xéwal ak kattan ak wér ba lim bëgg a liggéeyal maamam ja Cheikh Coro ci yoonu Xaadim Rasul yi mu mën ko lu kawe njortam te nu ànd ko moom di ndokkeel bu baax a baax a di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxoom rek di ko ñaan mu jot lu ñu ko ci mbooleem mbokk yëpp euh, boroom xam-xam yi suñu mbokk yu baax yooyu waaye tamit euh, góor yàlla yi ak soxna yi ne ci biir groupe bi yépp daal yëpp rek euh, ñoo ngi ñaan nuyoo boobu àgg si ñoom di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa su ko defee kon ñu ñëwaat rek di delloo sant yàlla subhanahu di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallam di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yal ko yàlla may kattan ak wér ak fekke tan ak gudd fan li mu liggéeyal maam Xaadim Rasul lépp maanaam mu liggéeyal ko ko te nu ànd moom bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey ñëwaat ci liggéey bi ñaan yàlla doon nañu leen jàppale bu baax a baax bañ am ci eh, ay xéwal yu kawe suñ jot yoo xam ne xéwal yi ñu ni jàppale la ci ñu bëgg liggéeyal seen bi ñu mën ko naa liggéeyale eh, mu doon liggéey boo xam ne bu ñuy nungu la bu sell lay doon bi jaay seen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk suñu laaj bi njëkk rek mu ngi jóge ci sëriñ xaadim ñing ostaas ñu di ko siyaar bu baax a baax di ko ndokkeel di rafetlu taxawaayam ak pastéefam ak bëggam lu baax ci liggéeyal sëñ bii ñoo ko ci ndokkeel bu baax a baax di ko ñaanal yàlla gën a gën ko caa dëgëral gën ko caa taxawu jay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa moom tey laajam bu njëkk mi ngi laaj mooy ñu ne day laaj xukmu istijaari murdiin gayri muslimatin maanaam la ndax maanaam lan mooy atteb jullit bi nga xam ne bii daa am doom joo xam ne bi daa ci nàmp maanaam mu luyee nampalkat boo xam ne bii doonut ab jullit muy nàmpal gone googu lan moo cay atte ba laaj bu amoon solo ba defee lañ ko cay tontu rek mooy dañ ko naan loolu moom li ci wax mooy jaizun wal fuqahaau yaraw na anna tifla iza radaa min gayri muslimati sawaun kanat kitaabiyatan aw mushrikatan asbaxat tilka almaratu ummuhu min arida min arradaai wa sabata alxurmatu dañ ne loolu lu dagan la lu mën a ndax li gën a dëgëral daganam gi mooy dañ ne buñ ko joxee gone googu moom moom nga xam ne bi doonu tëb jullit moo xam ci ñu ami téere la sax ba ci ñu doon téere sax la wax ndax mushrika boole ko ci bu boobaa day dagan ndaxte kooku ko nàmp noonu day mujj euh, mel ni mooy yaayam gis nga yaayam ci ci ko nàmpal gis nga dañuy daal di seen diggante kon day daal di aram ci wàllu takkante ndax te fatwa ba la jàll bi ñu doon lim jigéen yi xam ne ñu mënee su koo takk boole nañ ci ku mel ni kii nga xam ne kii dafa nàmpal doom doom bi doon te ko seen diggante day araam su ko defee kon loolu lu mën a nekk la lu lislaam daganal la lu ñu mayee la ndax da ca tega ne li annal kufra wal fusuqa la yu asirani fi laban ne ne ak weddi ak ak caay say bu fekkee ni nit ki da koy nekk di ko dund ne loolu maanaam du jeex te am soow maanaam du yàq soow ma la bëgg a wax maanaam jotewut soow ma dara kon ne ne wa min samma fa inna ridaahu min al muslimati kon na ku yéefar ba nàmpal ko ak jullit ba nàmpal ko yépp ñoo ca yem فالنبي صلى الله عليه وسلم رضع وعمه حمزة من ثويبة وهي كافرة nga ci Seydina Muhammad ni sallallahu alayhi wa sallam ne ne bokk na moo ko bàyyi taxam bi ñuy wax Hamzatu ku leen nàmpal muy soxna suñu doon wax Suwaybatu te Suwaybatu ne ne yooyu mu leen di nàmpal ne booba ab yéefar la booba dugagut ci lislaam maanaam kon gis nga ku dut ab jullit ku mën a doon ne kon dina mën a dagal su la xam ne ñi dafa toll ci nàmp muy laajaatit maanaam comme ñooñu nga xam ne ñi dañoo ay téere muy alkitaabiyaat maanaam ndax mën nañ leen takk wala wala boog charte nan lañ leen di takke waaw alkitaabiyaat charia muy alquranul karim bi sharia may nañu maanaam ñu mën leen a takk euh, aay bi koy wax di ko leeral mooy aay bi may bëgg a jàng nii aouzu billahi min asheytan rajim qaala allahu taala al yawma uxilla lakum at-tayyibatu wa taamu allazina utul kitaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum walmuxsanaatu min almuminaati والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن a muxsinina gayra musaafihina wala mutaxibi axdamin yàlla dane tey jii maanaam yonente bi ci moom la ko jaarale ne ko waxal ne yow tey jii defe na bisu arafalaan ne tey uxilla lakumu tayba ne lépp loo xam ne li lu dagan la euh, lu tey la lu baax la dagal nañ nañ ko ci yéen wa taamu lazina utul kitaaba xillun lakum ñoomu ñi nga xam ne ñi bokku leen diine waaye amoon nañuy téere seenu ñam mi nga xam ne bi islam may na leen ngeen di ko lekk ñoom buñ ko toggee dagal na ci yéen jullit yi ngeen mën koo lekk wa taamukum xellul lahum mais itam yéen itam jullit yi togg ñoom tamit suñ ko bëggee ñoom dagal na ci ñoom wal muxsanaatu minal jigéen ñi nga xam ne ñi doon nañu ay njaalookat ñooñu itam dagal nañu ngeen mën leen a takk waaye tamit wal muxsanaatu min allazina utul kitaaba waaye tamit ñi nga xam ne ñu ay jullit waaye am nañu téere ñooñu tam bu ñu nekkee ñu sangewu ñoo xam ne duñu njaaloo ñooñu tam ne ne may nañ leen ngeen mën leen a takk waaye nag ida aataytumuhunna ujurahunna su ngeen leen joxe seen ak can kon nga daal di gis na kon jëm na ne bu ngeen leen mën a jox ak can maanaam dina dagal ngeen takk leen kon mënees leen a takk ñoom bu ko defee ne ne kon ñooñu daal mën nañu takk ci charte yi comme ni ñu tekk jullit rek maanaam ñu wut ay seere buñ koy fas te it maanaam ñu jox leen seen cen comme niñ ko doon joxe bu doon ni koo xam ne kii ab jullit la beneen laajam bi ci toppaati dafay laaj ne àqdu nikaaxil kitaabiyati fil masjidi wa wa qiraatul quraani min al fi dalika al aqati day laaj na ndax moom euh, kooku nga xam ne kii du jullit buñ koy mayee ndax may nañ ko mën nañ koo maye ci jàkka waaw moom jëm kay daggan na maanaam ñu mën ko maye maanaam manees na ko maye ca jàkka ja comme bu doon ab jullit la waaye tamit muy laaj dañ ne alxuraan li xam ne ji moom la ñu jàngal bu doon ne ab jullit la itam ndax mën nañ ko ko faa jàngal waaw moom lañ ko mën a jàngal la loolu mooy dane ma anan nikaaxa mu baaxul di am takk gi dagan na fala yushtaratu makarun muayyan lil aqdi ne ne duñ ca sartal benn béréb bu ñu ràññale nañ ko fa maye moom mi maanaam di ko ber déedéet bu doon ab jullit donc mu ñoo yem ne ne kon bu boobaa fa yumkinu an yakuna fil masjidi maye ga mën nañ ko ñoo def ca jàkka ya aw fil mahkamati shariati wala bu fekkee ni muy attee la ba am ab eh, tribunal boo xam ne bi tribunal ab sharia sax bu leen neexee mën nañ koo may foofee aw man manzil waaye man nañ koo may ci biir kër aw xayriha ak béréb bu mën a doon kon bu ko defee eh, fi ñu koy maye moom béréb ñu maye jullit ñu fay maye rek man mën nañ ko faa maye tey bu dee ci wàllu jàng alxuraan dañ fay def itamit de nee na wa yubaaxu lil imaam an yaqraa min alquraani inda haada al aqdi ka may nañu imaam bi mu jàng fa alxuraan yooyu nga xam ne moom la ñuy jàngal bu doon ab jullit la comme nañ koy defale ñeneen ñi ndaxte nee na li anna xiraat fi aqdi zawaaji duwaaun wa tabarrukun ne ne ñu maye ba pare imaam wala ku fa jàng alxuraan bi maanaam muy ay alxuraan yooyu ñu jàng wala saar yi ñu jàng maanaam ak ñaan la ak barkeelu kon jéem lislaam may na la fii du ab jullit nga mën koo takk euh, bu fekkee ni loolu am na jamono dañ ko takk lañ doon defal la doon def ci wàllu googu ci bu dee jullit la lépp loolu mën nañ ko koo defal bu dee ca béréb ba itam bërëb bu mën a doon mu jàkkale wala fenn fu mën a doon bu boobaa foofa mën nañ ko fa may itam waaw waaw maanaam loolu lu mën a nekk la beneen laajam bi ci topp dafay laaj tabanni fil islaam tabanni mooy adopté maanaam mooy euh, nit ki jël koo xam ne kii juru ko jabaana maanaam soxnaam juru ko maanaam mu féetale ko boppam maanaam def ko muy doomam wutal ko aw tur jox ko aw santam maanaam moomale ko boppam loolu lay laaj lan mooy atte ba dañ ko naan attabanni xaraamun fi lislaami bila shakkin dana loolu bu dee ci lislaam la ci sharia la moom dafa araam ab jullit waru koo def ab jullit warut a jël koo xam ne kii doomam mu moomale ko boppam jox ko aw santam mel ni ay doomam nee loolu moom tamit dafa araam wa huwa nee na moom lay leer mu ne wa huwa an yansubal islaam an yansubal islaam an yansubal man laysa waladan lahu laa huwa min sulbihi wala talithu zawjatuhu nee na tabar ni mooy nit ki jël koo xam ne kii juru ko euh, soxnaam juru ko maanaam moom moomale ko boppam nee na haza kaana fil jaahiliyati jamono ceddo galaan nga xam ne boo xam ne bi maanaam lislaam ñëwagul ñu doon ko def bu ko defee nag fa jaa al islaamu wa raddal umura ila nisaabiha nee na nag bi islaam ñëwee mbir yépp lu ci mën doon rek da ko jël delloowaat ko ca nattukaay ga nga xam ne lu ci ne rek dañoo day wax ne lii nangam nañ ko war a defe waaw bu ko defee wa alanaha waadixatan dana tabanni bii lislaam leer na ko nañ ci araam koo xam ne bii dafa araam ci ayat alquran bii ñuy jàng yàlla subhanahu wa dafay wax ne maa jaala allahu li rajulin min xalbayni fii jawfihi yàlla day amul kenn koo xam ne kii defal na la ñaari xol ci sa biir wa ma jaala ummahatikum allaa'i tuzaahiruna minhunna ummahatikum dana itam seen wa ma jaala azwaajakum allati wa ma jaala seen soxna yi nga xam ne i maanaam su di xuloom ñoom mer tax ngeen naa leen def naa leen ni sama yaay maanaam ne loolu taxut sa soxna soosu mel ni sa yaay ci yow waaye wax ju araam la yoo xam ne ji lislaam da ko tere nga xam ne ca jamonoy ceddo ga lislaam ñëwagut loolu lañ daan wax seen soxna yi bu ñu xuloog ñoom bu ko defee am fasa lay doon bi lislaam ñëw itam wax ju ñaaw jooju ak wax ju bon jooju da ko continuer nga xam ne ku ko wax sa soxna rek maanaam am fasa lay doon ci moo xam ne nii faaw rek maanaam kafaara da cay war yaakaar naa ku jàng suratu mu jàgg jaadala looloo taxal mu wàcc kon gis nga wama jaala addaaya akum abna akum ko ba nag lii rot ci laaj bi muy lim nga muy tabani mooy wama jaala addaaya akum abna akum lii araamal tabani mu ngoog loolu moo araamal tabani wama jaala addaaya akum abna akum ne ne yàlla seen doom yooyu ngay xam ne maanaam da ngeen na wax ne seeni doom lañu te jur leen doonuñu seeni doom zalikum xawlukum bi afwahikum ne loolu daal yéen a ko fental seen bopp di ko wax rek ci seeni làmmiñ wallahu yaqul xaq wala waaye yàlla moom dëgg rek lay wax wa huwa uh, yahdi sabila yàlla nag mooy ki nga xam ne kii uh, mooy jël ku ko neex mu teg ko ca yoonu wa nga xam ne mooy yoon wa yoon wa ko gënal kon taban ni muy adopté doom nga jël ko moomale ko sa bopp lislaam da ko tere ñooñu sax aay bi day continué ba ne udduuhum li abaihim ne na doom yooyu delloo leen ci seen baay maanaam dina leen wooye seen baay maanaam dina leen wooye seen seen sant baaya fa in lam taalamu su ngeen xamul seeni baay fa ixwanukum fi diin na leen jàppe ne seeni mbokk lañu ci diine waaye mënuñoo doon seeni doom kon maanaam kon su ngeen xamee seen baay da ngeen leen di delloo ca ñoom bàyyi leen seen sant yooyee su fekkee ne xamu leen seen bàyyi nag ngeen jàpp ne ay bokk lañu ak yéen ci biir diine waaye doonuñu seeni doom kon loolu daal mooy li ko ci mu di ko def loolu ci jamono ceddo yooyu rek ñu koy def wallahu alam yeneen laaj ci toppaat mooy Sëriñ Moussa Ndiaye moo koy laaj tam ñoo koy siyaar bu baax sant ci tàbbi gi mu tàbbi ci liggéey moom itam di ñaan yàlla wala ñoo defal tawfiq bu baax a baax sëriñ Moussa Ndiaye dafa laaj sinnu udhiyati maanaam xaram tabaski day laaj ndax am na at yoo xam ne ca la war a toll maanaam door a matal tabaski wala bu rëy rek am dayoo noonu day daal matam tabaski waaw bu ko defee loolu lañ ko ci tontu mooy am tabaski dafa am ay at yoo xam ne yii moom la war a am tàmbalee ca doga mën a matam tabaski waaye dees ko natt ci rek maanaam xar mi rëy na wala la ngay tabaski rëy na mu ngi bëy wala leneen nga daal di koy tabaski déedéet dafa am ay at na eh, dallat al adillatu shar'iyatu ala annahu yujziu min ad-da'i ma tamma sittata ashhurin sharia dafa wax ne am tabaski bu dee ni am xar ngay tabaski maanaam ay atam lu mu néew néew maanaam na mat juróom benn weer maanaam ab diiram ab diiram lu mu tuuti tuuti na mat juróom benn weer am xar boo koy tabaski xar mu mat juróom benn weer jëm kaw moo cay baax wa minal maizi sanatun bu fekkee ni aw bëy ngay tëbaskee bëy wu am am at mooy baax wa minal baqari sannataani bu fekkee ni aw nag ngay tëbaskee nag mu am ñaari at moo baax wa minal ibili xamsu siniina bu dee ni giléem ngay tëbaskee dafa war a am juróomi at wa ma duna zalika fala yujzi hadiyan wala udhiyatan ne nag bu deem xar la su matut juróom benn weer bu matut am tabaski bu dee bëy la bu matut am at bu amut am at mënta tabaski bu dee aw nag la bu matut ñaari bu dee giléem la bu amut juróomi at mënta tabaski loolu la lay wax kon sëñ Moussa am tabaski la loolu moo cay charte ya maanaam kon nañ ko dégg noonu nga xam ne yii mooy nga xam ne yii ci la diirub jur bi mën a tabaski tàmbale bu dem xar mu tàmbalee ci juróom benni weer moo ci gën a doon gone bu dee bëy la mu amam at bu dee aw nag la ñaari at bu dee giléem la juróomi at su ko defee beneen laaj day laaj ne euh, dafay gis ne bu ñuy maye ñaari imam ji day laaj kii takk muy ku góor gi ndax am na soxna maanaam yooyu waaye di laaj it jigéen bi ñuy maye moom ku ñu mas a maye la yooyu waaw loolu lu jar laaj nag loolu képp kuy maye rek loolu loo laaj la ndax bu fekkee ne ci wàllu góor gi la war nga xool ba xam moom euh, moom nii di takk fan la toll ci ay soxna ndax lislaam boo xasee takk ñeenti soxna dootu la may ngay jàll di takk keneen kon bu nit ñëwee di ñaan soxna imaam may ko soxna te fekk na ku takk ñeenti soxna la soxna la su boobaa ak njuumte gu rëy rëy day ngoo xam ne moom imaam du ca mën a mucc kon loolu bokk na ci li nga xam ne lii ci du gën a am solo loo xam ne tax na imaam di laaj euh, waaju góor ji situation fan la toll bu dee ci soxna si la tamit bu fekkee ni koo xam ne kii dafa nekk ci buum ak jàmbur kenn waru ko maye su fekkee ne dafa ëmb itam kenn waru ko maye loolu na ci sabab yi nga xam ne dina tax muy laaj soxna sa wàll googu fan la ca ndax imaam bu ñëwee rek daal di maye te laajut ba xam foofu bu fekk ndaw sa daa nekk ci bu rëy lay doon du baax la yeneen fitna su fekkee ne dafa ëmb mu maye ko te laajut ba xam doo ko xam laajut dafa may rek fekk dafa ëmb bu boobaa tàkk ga baaxut tam boobu moom kon du ca mucc kon laaj boobu day am solo lool ci maye bala ngaa maye ñaar ñi nga xam ñii charia mën naa daganal seen diggante wala déet loolu sa am ni laaj waaw kon laaj yu am solo la kon ñu dégg ko noonu nga xam ne ni mooy sawar yi nga xam ne ni moo tax imaam di laaj ñaar yooyu bu ngeen di bëgg maye beneen laaj bi ci topp moom itam mi ngi jóge ci sunu jëwriñ ji oustaz Alioune Badara Ndiaye ñoo ngi koy siyaar bu baax di ko ndokkeel moom itam ci taxawaayam ci liggéeyal diine yal na ko yàlla gën a jàpp moom itam ba li mu bëgg a liggéeyal islaam mu man ko sëñ Badara Ndiaye day laaj ne maama suuru di zina yowma alxiyaamati ida kaana muminan taqiyan laaj boobu solo laaj muy ne ki nga xam ne ki dañ ne doomi njaaloo la ba lislaam am num ko attee day laaj moom doomi njaaloo jooju bu fekkee ni ak julit la doonoon ab jaamukatab yàlla eh, lan mooy doon ak mu jëm bu bés penc ba maanaam lu ci sariya wax wala moom lu ci alxuraan wax waaw bu ko defee liñ ko ca tontu mooy liñ koy tontu nii dañ koy tegtaloo maanaam ci mbindam cheikhul xadim radiallahu taala anhu wa nafana barakaatihi amin bu ko defee loolu dane fal jawaabu nastadillu min kitaabaati cheikhul xadim fi kitaabihi taqribul aqsa fi abraki lfaydi ma bihi yuusaa loolu suñ badara liñ la cay tontu mooy sëriñ Touba nax anallah fi barakaati am na téere bu mu bind mu mu tudd téere bi tudd taqribul aqsa mooy téere bi ni mu ko tudde mooy jegeñal loo xam ne dafa soriwat lu soriwat nag mu ne mooy fii abrakil fay bi nga xam ne dafa loolu soriwat dafa nekk ci xéewal yi nga xam ne moo gënoon a barkeel wa anfaama bihi yuusaa tayit loolu soriwoon jege jegeñal ko dafa nekk ci li gën a jariñ ci lépp loo xam ne lii moom la ñuy dénkaane téere boobu laa la bëgg a wax kee di doomi njaaloo fan lay mujj bu bés ba bu fekkee ni ku doon jaamu yàlla doon ab jullit maanaam kooku dafa bokk ci juróom-ñeent yi nga xam ne moom la xaalim rasul lim ci téere boobu ne ñoom laaraaf la ñu def laaraaf fa lay dem ci lii nu jànge ci mbindam sëñ mooy laaraaf mooy diggante àjjana ak sawra maanaam juróom-ñeent yi may bëgg lim ni dañ ne duñu dem àjjana duñ dem sawra waaye laaraaf la ñu nekk maanaam laaraaf nag bu ñu koy wax moom mooy xam naa du doon dëkk ba xam ne bi bu xéewale lool la waaye tamit eh, ay tartari nag yaay du bari du miti maanaam day nekk ci digg bi daal xam naa léeg-léeg mu xañ naa kon mu xaw a doy waar lan lay doon ne ne foofee wala du zina ca foofa lay bokk muy ca waa laxraaf sëriñ bi dane xad udda tisaatan zawul araafi min duni miniyatin la dal aslaafi ne ne ñi nga xam ne ñi ñoo dem laxraaf leen ba ñu doon juróom ñeent nga xam ne ñi fi jiitu woon boroom xam-xam yépp maanaam loolu lañ wax ne laara juróom-ñeent yi ñoo koy dëkke mu ne alkaafirul mi'ta'u jiddan xad yahab ab yéefar boo xam ne bii yàlla da ko jox alal mu doon ku tabe kuy maye di dimbalee nit ñi di dimbali doomu yi bu baax a baax a baax tabe lool lool lool ne ne yéefar boobu maanaam bu dee laaraaf lay dem ngir tabe googu xam ne gii da ko tabe wan wal alimul baxilu xul lahun tasab waaye tam nee na ki nga xam ne kii dafa am xam-xam ndax naayan ca suñ ko ca laaja du ca nungoo wax loo xam ne bi xam na ko te du ko wax ka ko laaj maanaam ñu tudde ko maanaam muy borom na borom xam-xam bu nay ne ne lay bokk summa taman yutiu la rabbana walam yakun li ne ne koo xam ne kii day jaamu yàlla te maanaam du toppatoo ay ñaari waajuram mu ne kooku itam ca waa laaraaf la laaraaf lay bokk sumata abdun yaabudu rahima wala yakun li sayidin rahima ak jaam boo xam ne bii ma ngay jaamu yàlla waaye maanaam yëre mu doon ab sangam kon loolu moom day tombeek jamono yi xam ne ñi ak jaam amoon na waaye loolu moom amatut fa maratun kaanat lillahi amila walam takun kalama zawjin xaabila da itam soxna soo xam ne si ab jaamukatu bi yàlla la waaye tamit e, sëriñam boobu ko yàlla boole la muy jëkkëram mu doon ku baax ku ragal yàlla daadu dafa daawut dégg ay waxam maanaam daawut nangu ay waxam moom itam ci waa laaraaf lay doon mu daal di wax ne wa waladu zinaa lahu xam ne bi am na diine leer nañ joo ku ragal yàlla doon ab di jaamu moom itam ci waa laaraaf lay bokk summata mu'minun lisaanuhu lisaanuhu xabeex nee na julli boo xam ne bii jullit boo xam ne bii dafa ñaaw aw làmmiñam dafa ñaaw aw làmmiñ maanaam lu baax lu bon rek lay wax ca gémmiñam nga ne ne ca waa laaraat koo xam ne dafa nekk ci jamono àdduna waaye bi yonente bi ñëwee maanaam woote kooku mu doon woote ak gut ci moom ba mu làqu yëgut ne yonente bi ñëw na masalan ne kooku wax ca waa laaraf la ñuy bokk wal kaafirul marudu xat xalaka fi sixarihi ak yéefar boo xam ne bi dafa juddu maanaam faatu ci ak ndawam xat tamatil addu refi ne ne kon lim bi mu doon wax ne juróom-ñeent euh, mat na mu ngi noonu kon ne ne ñii ñoo ñooy waa laaraaf li ko nag gis nga waladu zina mi yonent bi dane mooy charru thalathati maanaam dana ñett yi moom moo ci gën a yées mooy ñaari waajur yi wax ak moom doomu njaaloo dana ñaari waajur yi moom moo leen gën a yées ndax dafa juddut ci ak laap dafa juddut ci charia dafa judd ci lislaam loolu tax te ñee mooy nañu yàlla ba am ko it maanaam ay jullit lañu loolu tax mu ne moo gën a yées ñett ñi ci ñett ñi waaye tamit am na ñu wax ne waxi la wala lu zina isa xadama li waliyin xaqan lillahi min al mumkin an yadxula doomi njaaloo bu fekkee ne liggéeyal na nit ak yàlla nit koo xam ne kii am na ngërëmal yàlla ne ne su ko liggéeyalee moom moomu moom doomi njaaloo su liggéeyalee kooku yàlla mën na ko ca yéene tàbbal ko ja àjjana kon daal doomi jaalo jooju sëñ bi dafa ëllimaale ci juróom-ñeent yoo xam ne ci waa laaraf la ñuy waa laaraf lañu kon ñu dégg ko noonu di ci desaat sëriñ Mouhamad Diouf borom alxuraanul karim borom daaray kamil ñoo ngi koy ndokke lu baax baax moom ci liggéey bu taxa boobu ci liggéey bu baax boobu liggéey bu am solo moom dafay laaj miqdaaru nisaab ba waaw day laaj ci wàllu asaka di laaj nisaab daal leen bëgg na ku ko ci defal gën ak leer waaw xam naa moom dafa am fatwa buñ defoon ci asaka moo tax biñ ko laajaatee ma daal di koy tënkët xam naa xam naa li gën a lënt ci boppam mooy dama ko waxam ne ko euh, nisaab daal dama waxam ci fatwa nisaab ñaar téeméer la ni ko sëriñ Sooy bu Mbàkke tënk ci téere xoratul ay ni mbaax maanaam buñ nee nag nisaab téeméer la boo ci amut ak dégg da jàpp ne kon nisaab dafa tuuti waaye dañ na leen nisaab foofu la tàmbalee bu dee kii nga xam ne bi am xaalis dong la am ndax xeet yi ñu war a génnee eh, asaka ci wàll googu muy doon nisaab mooy xaalis bi ñu jëfandikoo ñun mu doon ay këyit ak i pièces ku ca yem dong la la ne soo amee ñaari téeméer foofu la nisaab bi tàmbalee waaye yemu fa la boo amee ay millions boo amee ay milliards lu mën a doon da ko war a xayma lu mu tollu nga génne ca euh, azaka waaye dafa am fu mu tàmbalee waaye awut fu mu yem maanaam nisaabab xaalis loolu tax dañu naan ñaar téeméer yi mooy nisaab bi mooy li nga xam ne li mooy tàmbali doon alal ji nga xam ne ji ci lañ war a génne asaka ak lu ca dolle ko rek lu ca dolle ko rek kon amut ab yemukaay dafa am fu mu tàmbali waaye amut fenn fu yem te noonu rek la mën a demee nag faw dañ la naan bu dee xaalis la nisaab bi fii la tàmbali nii lay toll bu ko defee loo am ci xaalis rek moo xam ay junni la xam ay millions la moo xam ay milliards la nga koy calculer lu ca war a génne ci asaka nga génne su ko defee bu fekkee ne koo xam ne kii day yëngu ci wàllu or lay nisaaba mooy quatre-vingt-cinq grammes waxam ko mooy juróom-ñetti fukki grammes ak juróom mooy nisaaba or bu ko fe defee ki nga xam ne kii day yëngu ci or buy génn asakaay or jooju day laaj gramme ak or ñaata lay jar masalan buñ noonu fi mu ne gramme ak or dix mille francs lay jar léegi da jël dix mille francs nga multiplier ko quatre-vingt-cinq su boobaa euh, garaam yooyu dalay jox huit cent cinquante mille nga xam ne kon yow yow sa or bi kat tolloo nag ci xaalis huit cent cinquante mille nga war koo génneel asaka nee bu fekkee ne ci xaalis la xam nga xaalis nee naa la fee dañ ne ñetteew la waaye mooy xaalis bi ñu jëfandikoo nii doonu bu ñuy peese waaye bu dee ki nga xam ne kii moom itam comme or la da ko am xaalis da ci liggéey ay chaîne ak ay lami xaalis ak da koy jaay par gramme nga xam ne bu ñuy jaay chaîne ak xaalis gi wala lamam xaalis dañ koy peese ne la nangami gramme la ñu ne la euh, kooku da nga ci am cinq cent quatre gramme bu dee xaalis bu boobaa da ngay laaj gramme ab xaalis ñaata la jar masalan bu doon ne dañ la fi mu ne la gramme ab xaalis téeméeri dërëm la jar maanaam cinq cent da nga jël cinq cent quatre vingt quinze millions xam ne mooy nisaabam nga multiplier ko cinq cent maanaam cinq cent boo ko multiplier cinq cent daf lay jox deux cent quatre vingt dix sept mille bu fekkee ne yow garaam yi xaalis nga yor di ca yëngutu kon loolu ngay mu daal di nekk deux cent quatre vingt dix maanaam ci xaalis nga xam ne kon yow sa xaalis bii nga yor di ko peese di ko jaay maanaam euh, deux cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent ci xaalis moom la doon nga génneel ko asaka su ko defee dañ la naan faman ahaba an yuzakkiya maa indahu fal wala yandur dan nisaab maanaam bëgg génne asaka maanaam da génne asaka ja ci ñetti lim yee ñu la wax waaye bul xool nisaab bi ñetti lim yi mooy bu dee ni ñaar téeméer yi la la wax da koo déparé ba ba nu xaalis ba toll nga xool nu sa xaalis toll nga génne nisaab bu dee ci or bi la dañ naan quatre-vingt-cinq grammes mooy nisaab bi nga xool bu ca mën di dolleku da ko cay boole bu dee xaalis bi la ñu ne cinq cent quatre-vingt-quinze grammes mooy nisaab bi soo amee lu ko ëpp da nga koy calculer lépp loolu la maanaam kon loolu moom daal mooy wàllu asaka jooju bu dee ci xaalis la bu dee ci or bu dee ci euh, xaalis bu ñuy peese la kon loolu daal mooy ni sax ndax dañ la naan comme la ko xaw a jaaxle mooy mi ataa dirham ni mooy yaar ñaar téeméeri dërëm yi ñu ko demee nisaab boo koy jàng sax dañ na naan bul sukkandiku foofu rek ndax ñaar téeméer moom du doon dara bu boobaa kon asaka du doon dara ndax dañ naan li anna nisaaba xalilun jiddan sax la lay wax ndax na boo déggee baatam nisaab ñu téeméer la day néew lool waaye dafa tàmbalee waaye yëmut cëw kon euh, beneen bi ci topp muy bu baax a baax moom itam di ko ndokkeel rafet lu taxawaayam baax a baax di wax amin ci ñaan yi muy ñaan yépp parce que xanaa yàlla ko yàlla nangu day laaj xukmu naafilati baada sawaadil imaam ala minbar atep naafila ginnaaw su imaam yéegee ci kaw minbar bésub ajjuma waaw foofu de maanaam borom xam-xam yi maanaam dañu fee am ak maanaam ñi jàngale fiq muy almasahib dañ cee am ak wuute dafa am ñoo xam ne dañ ne maanaam euh, mën naa nekk te dañ ko def sunna sax lañu wax ñoom maanaam imam ni yéeg ci kaw min bar di xutba nit ñëw di naafila am na ñoo xam ne dañ ne maanaam loolu lu war la maanaam sunna la nga xam ne nañ yonante bi sax digle na ko loolu nag ñoom lañ ca tegtaloo mooy sallallahu alayhi wa iza jaa ahadukum yawmal jumaati wal imaam yaxtub falyarka rakatayni wal yatajawwaz fiihima kenn ci yéen bu ñëwee bisub julli ñaari rakka yu gàtt balaa toog loolu bokk na ci hadiis yi nga xam ne nit ñoom moom lañ tekkoo ne kon may na nit ki bu imam nekk mu naafila du toog waaye tamit am nañ beneen hadiis bi ñu tegtaloo ci ne dafa yonent bi dafa mas a nekk ci commune bar di xutba am waa ju ñëw daal di toog rek julliwut maanaam naafilawut mu ne ko jógal nga julli ñaari rakata gàttal ko kon ñoom foofu lañ teg taloo ne kon may nañu nit ki bu imaam na ci commune bar bi naa naafila waaye bu dee ci almalikiya li nga xam ne dañu dox ci imam ci ngiram imam malik ñoom dañ dañ koo tere dañ koo tere comme dañ ne xaala xalil wa muni an naflun waxta tuluwaay shams wa xurubiha wa xutbatil jumaati xalil dafa naa ñu jàng fiqaar yooyu xam nañ ko muy boroom xam-xam bu mag boobu ñu koy wax xalil nee na dañoo tere naafil la bu jant bi di dogo fenk ak bu jant bi tàmbalee di so te duggagut ak bu ñuy xutbaab xutbaab yowmal jumaate bu imam yi yéegee ci mindaar ne ne fii yëpp dañ koy tere na filla su ko defee waa Maalika yi itam itam fi ñuy tegtaloo ne maanaam ba ñuy tere ku naafila foofu mooy ne ne itam dafa am benn xadis boo xam ne bii yonente bi daa mas di xutba na ci kaw minbar bi du xutba am waaju ñëw di jéggat sàppe yi yonente bi ne ko toogal te bàyyi jéggat bi yaa ngi lor te digulu ko maanaam mu naafi la ñoom ne nañu foofu la ñu tegtaloo ne kon daal nit ki bu ñëwee fekk imaam bi ci kaw min bàgg muy daa war a toog waaye wutu naafi la ndax fee da ko toogloo te digalu ko mu naafi la kon xaalis yooyu yëpp da cee rot kon ñiy jàpp li ñiy loolu moom ak yërmaane la moom ixtilaafu ummati rahmatun muy laajaat itam ne bu ñu jullee ajjuma ba pare xam nga bu ñu jullee ajjuma ba pare dañ ne maanaam bu imam bi génnagut bul fa ne dinaa file fekk génnagut jumaa ji wala mu déplacé fa mu doon jullee ba tox dem feneen muy laaj nag nag waaw bu ne ne yow fekk imam jaa ngi ci jumaa ji bul julli bul naa fila te imam ji dafa nam ma yàgg war na faa mën a nekk ba takkusaan buy boobaa yow ndax da ngay ci tere googu wala déedéet waaw déedéet doo ca continuer bañ na ne maanaam bu imam bi dut yàgg ci jumaa su fekkee ne day julli rek def ay baaxiyaatu saalihaatam daal di génn dem ñeneen la maanaam bu fekkee noonu lay def da nga koy xaar ba mu def loolu ba génn nga doog a des sa jumaa da yow di naafila say naafila waaye dañu ne bu fekkee ne nag dafay yàgg nga xam ne toog diir boo xam ne bii leer na la ne def na ay baax baaxiyaatu saalihaatam def na ay ñaanam ak yépp ba xam ne fi muy moom jóg dem moom mën naa nekk bu jubut te nekk ci leneen loo xam ne da ko koy def ne bu boobaa doo ko doo topp tere googu ñu la doon tere naafila waaye mën ngaa jóg nag daal di def kon naafila topp itam du tënku rek ci ne fekk imam daal ci biir jumaa ji dañ la koy tere déedéet bu fa dee yàgg lañ leen doon tere ne maanaam dañ lay may lay nga mën koo def bu ko defee beneen laajam bi ci toppi muy salaatu jumaatee ni fii masjid waaxid maanaam ne fi ñu nekk ñoom jumaa ji jullee dañ fay jullee ñaari ajjuma ñaari jullee ajjuma ci benn aj ci benn ci waxtu bi maanaam ci benn ajjuma bi daal ne daal ne jumaa ji ñor ñii dañuy julli ak seen ab imaam génn ñeneen ñi dugg ak ak seen seen imaam julli muy ñaari julli wax ne ci benn jàkk lañ koy defee muy laaj atte ba bu ko defee loolu lañ ko ci tontu mooy bu dee ni ne min xaysul asli la shakk annaha la tajuzu loolu ne ne bu nu delloo ci cosaan delloo ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ne loolu moom maanaam lislaam maywu ko lu dut di nekk ngant dafa am ndax lislaam moom lépp lu muy tere rek maanaam su ngàntu duggee rek day daal di bàyyi loola ñu mën koo mën a def loolu tax mu ne illaa li uzrin yubiixu daalika lu dut ni dañoo am ngàntal mën na leen a may loola Euh, loolu na ne wa min zalika iza lam yujad masjidun axar mutlaqan su fekkee ne ñoom jenn jumaa jooju dong dong dong lañu am amuñu jeneen euh, jumaaye te walam yumkin tawsi'ul masjidi te jumaa jooju amatuñu fenn fu ñu ko mën a yokkee ni mu toll rek ni la mën a toll walam yumkin an yusalliya annaasu xaarijal masjidi imtidaadan liman bi daaxilihi tayit amatul yeneen espace yoo xam ne yi nit ñi mañoon bu juma ji feesee dinañ mën a jokk ci sàpp yooyu nekk ci biti bokk ci julli ga ne ne fa in lam yumkin hada kulluhu bi ay shaklin min al ashkali fa in xawla bil jawaasi sahihun ne ne daal suñ ci amul menn pexe nga xam ne jumaa jooju dong lañu am te jumaa ji maanaam ñoom ñépp mënuñu faa duggandoo day fees des mbooloo mu baree baree bare Euh, amaatul yeneen espace yoo xam ne mën nañ faa sàppe bokk ci sàppe juma ji te it ji mënuñu ko yokk ci genn anam ne su boobaa dañ leen may su mbooloo mu duggee ba juma ji fees ab imaam ñëw jiite suñ jullee ba noppi ñooñu julli woon génn ñeneen itam duggaat imaam ba jiite waat leen wala beneen imaam ñëw jiit jiite leen maanaam beneen imaam ñëw jiite leen ndax euh, loolu maanaam ngànt la loo xam ne ni maanaam amuñu ca menn pexe te gis nga dañ naan euh, ad daru ad darura tubiixu al mahzura ne li nga xam ne dafa mënta ñàkk saa bu amee rek lañ doon tere maanaam dafay daal di daganal ñu mën koo def kon loolu daal bu fekkee ne amuñu menn pexe bi lu dul ni noonu dong la mën a demee ndax buñ ne nañ fa taxawal benn ajjuma dina am mbooloo mu baree bare moo xam ne nii waroon nañu julli ajjuma te duñ ko julli su boobaa dañ leen di may nag maanaam kooku ci juma ji ñu def ko comme noonu ñu koy xaaje bu ñuy jullee génn ñeneen ñi daal di dugaat bee di génn loolu lu mën a nekk la kenn ngànt la am muy laajaat asalaatu xalfal muxaalif fil furoo ne ne maanaam koo xam ne ki bokk am ngir mu jiite la luy atte ba loolu dara néew ca lu dagan la bu baaxul wa jaiz maye nañ ko dagan na maanaam kii mazhabul maliki la kii mazhabul shafii la kii mazhabul xanafi la kii mazhabul xanbali loolu ku ci nekk mën nga jiite sa morom loolu moom du dara dana ne euh, mu baaxul wa jaisun kal maliki yi xalfa shafii wa saafi xalfal xanbali ila axiri ila axiri ki nga xam ne ki ci ngërëm imam Maalik ne tënku mën naa jiite ki tënku ci ngërëm saafi ki nga la mën naa jiite ki ci mbiram ngërëm imam Maalik ki nga xam ne kii ci xanbali la tënku mën naa jiite ki tënku ci mbiram ki tënku ci Abu Xanifa kum ci mën doon daal mën ngaa jiite sa moom loolu moom lislaam may la amul benn xajal boo xam ne bii da ko cay def waaw su ko defee euh, beneen laaj bi nga xam ne bii moo ci des mooy euh, dañ ko yóbbante jëwri ñi liggéey woon bi mu demuy mu dungam waxuñu kan moo ko laaj waaye nee na rek loo xam moom dañ ko yóbbante ne ko def kii dafa wax ne lan mooy atteb ki nga xam ne kii allasi xalafa bi xeyrillaahi la yutalliqu zawjatahu nga xam ne kii dafa giñ waaye giñul nag ci yàlla waaye ci keneen la giñ ne dina fase jabaram dafa giñ ne dina fase ne jabaram dinaa la fase loolu mooy moom alxalafu bi xeyrillahi laysa xalafan fil islaam bu ko defee lañ koy jëkk wax mooy bu fekkee ni giñu ci yàlla lislaam daal ngiñ li mu nangu mooy giñ ci yàlla mooy nga wax billaahi wala wallaahi wala tallaahi waaye dañ leneen lu baat yi nga xam ne ci yàlla nga koy delloo mooy ngiñ loolee maanaam la loolu moom lislaam jàppewut ne ngiñ la bu fekkee ne nag dafa giñ ne eh, sa dafa giñ ne wax soxla si ne ko dinaa la fase loolu moom eh, waadum bi talaaxi laa yaqaawu talaaxu du mu yi ne loolu dum fase loolu taxul mu doonam fase dinaa la fase maanaam ab dig da ko koo dig te defagu ko kon fekk da ko koo dig noonu nag maanaam te fase gu ko maanaam jàppane am fase la dara waru ci nekk bu ko defee su fekkee ne nag dafa giñ ba pare daal di koy def su boobaa la fase mi doga dagg lay doga am maanaam bu giñaan ba pare nag def ko maanaam fase ba lay daal di am waaye feeg mi ngi naa ko maanaam dinaa la fase moom maanaam fase ko amatut ko defee ci charia la nekk dañ naa walaw xalafa billahi bi talaax wala bi talqa fa alayhi kafaaratul yamini li xamtihi su fekkee ne nag dafa giñ ci yàlla ne ko dinaa la fase te fasew ko maanaam dafa war a def kafaara maanaam dañ ko war a def ay ay daan dañ ko war a def ay daan dinañ wax dinañ wax ki nga xam ne ki dafa giñ ci yàlla te lam giñeen amut dinañ wax li ko sariya teg mu war koo def ngir mu ngir tuube ko loolu mu giñ te defu ko moom la lay wax nii dene walaw xalafa billahi su giñeen ci yàlla bi talaaxi wala ñu talliqaa giñ ne soxna si dina la fase te fasew ko maanaam dañ koy war a teg ay daan mooy lii wa kafaaru bi yamini nisfu ma xaala allahu taala li nga xam ne lii moom la ñuy teg ki nga xam ne kii dafa giñ ne dinaa def nangam te deful nangam loola daanañ koy teg moom la alxuraan ji wax ñu muy ci ay mu ne fa kafaaratu itaamu asharati masakina min awsati ma tutimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin daal di wax ne faman lam yajid nag fa siyaamu salaasati ayaamin ne ne eh, ngiñ daal kenn dinaa giñ ne dinaa def nangam ba pare te defu ko lañ ko cee teg ci daal mooy itaamu ashrati masakina na wut fukki miskin mu jox leen ñu lekk ba suur aw kisootuhum wala nga woddu leen ñoom fukk ñëpp aw taxariru raxabatin wala nga goreel ab jaam bu ko defee ne ne soo tëlee ñetti yëpp mënoo am loo jox fukki miskin bañ lekk ba suur wala mënoo leen wodd wala amoo jaam boo ko reel fa siyaamu salaasati ayyaam nga woor ñetti fan soo wooree ñetti fan mooy la nga xam ne bi mooy tege lam giñoon na dina ko def def ko kon ki giñ ci yàlla daloon na mu giñ ci leneen lu mën a doon ne soxnaam si dinaa la fase loolu moom maa daama mi ngi am am fase amut su ko fasee na la fase may dogo rek mhm. maa ngi jéggu bu baax a baax di dellu siyaar ñëpp rek di ñaan yàlla doole ñu defal taxaw jëy sa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak seen xarit